الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع صحابته الطيبين الطاهرين ومن نهج نهجهم واختدى بسنتهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أيها المشاهدون الكرام نحييكم ونرحبكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonenteem bu tedd bi di sayyiduna muhammad sant ko ci may gim ñu may ñu delsiwaat fii ci seen émission bi ñu tuddee xam sa diine ngeen ànd koog seen sit internet bi ñoo tuddee El Vision Média fa tabaarakallaahu ñu nuyu ñi ñuy seetaan ñépp moo xam ci réew mi la moo xam ci bitim réew nuyu itam suñu caméraman bi di El Hadj Lo fa tabaarakallaahu ànd koog sunu soxna bopp bi di soxna jay na ba Balde ci seen liggéey bu rafet bi e ñaan yàlla mi nga xam ne itam mooy may rek yàlla na ko yàlla defal li nga xam ne moom la yéene ci sit bi defal ko itam lu gën a kawe ci njortam ci barke yonent bi sallallahu xam naa mu mel ni bu delloo ci sunu waxtaanu tey dafay dellu ci benn ponk bu nga xam ne bokk na ci yi fondement l'islam ndax l'islam dañ ko fondement ci juróomi ponk bi ci njëkk mooy ginnaaw bi nga gëmee yàlla fas ci sa xol ne di ko jaamu te doo ko bokkaale ak dara gëm ne itam sayiduna muhammad moom la yàlla yónni mu ñëw pour jàngal ñu sunu diine bokk na ci ginnaaw bi ñaar yooyu jàllee bi ci gën a foor ci ponki juróom yi mooy li ñoo tuddee julli moo tax benn góor daf daan wax ne euh, jamono dina toll fu nga xam ne ñett mooy gën ñett nee na jamono doll dina toll fu nga xam ne euh, xaalis bi nga yor ci sa pos moy gën dom ji nga jur ci sa geño ndax nee bu fekkente ne sa dafa daanu nga bëgg ku la ko defaral nga sant ka sa dom mu ne la papa may ma tuuti ma ñëw ben xalé romb la nga ne ko dom yëkkatil ma bi mu yëkkatil la ko nga yëkkati 1000 francs may ko kon xaalis bi moo gën ci yow wala doom ji nga jur sa geño moo gën nee na itam jamono ngi ñëw takk jeeg mooy gën takk jànq ndax nee na jànq dafay toll fu nga xam ne dafay yëg boppam ba foog ne asamaan si su doon wàcc moo koy téye nee na itam jamono ngi ñëw jullee sa kër mooy gën jullee ca jàkka ja ndax sunu borom dafa wax ci alquran ne inna salata tanha an ilfaxshaai wal munkar nee ki nga xamne da fay julli te itam diko def ci façon biñu ko santane tewlu ruku'ya tewlu teewlu ya tewlu njàngum alquran ma borom bi neena bo pare julli ci bopam mo lay garantie ba sa ciri ben du ci meuna defati lu haram su loxo bi beugé sàcc julli ge nang ko don defé namu waré moy tax loxo ba dootu meuna a sàccati su beut bi beugé xol lu haram fekk na julli gi tagat nako ba dootul meuna xol lu haram su tànk bi beugé jox dox dem ci lu haram fekk julli gi tagat nako ba meunatul dox dem ci lu haram noonu la koy toppee ba cër jeex moo tax boo xoolee fuqahaaw yi nee nañu nit ki juróom yi nga xam ne moo fondement l'islam ñett mën na ko ci wàcc ba mu may julli parce bu azaka jotee ki war a génn azaka te amul lu mu génnee azaka kooku azaka wàcc na ko ki war a woor te wér gi yaramam mayu ko ko kooku woor wàcc na ko ki war a dem aji màkka yitam ca poosam mënewu ko wala wér-gi yaramam jotewu ko aj wàcc na ko waaye gis nga julli kooku du la wàcc ba ilaa yomi diin ndax fuxaaw dañuy wax ne ki nga xam ne leer na ko ne mën na taxaw julli kooku bu taxawee du wéeru bu demee ba nga xam ne leer na ko ne munta taxaw julli day taxaw wéeru bu demee bam leer ko ne moom munta taxaw wéeru mu toog te du wéeru bu ko leeree na nag mënta toog ñàkk weeru mu toog wéeru su ko mënul mu tëddee wàllu ndeyjoor su ko mënul mu tëddee wàllu càmmooy su ko mënul mu jaaxaan su ko munul mu junj kon yooyu ay firnde la yoo xam ne li muy wane mooy julli du mos a wàcc doomu aadama te itam dafa nekk lu nga xam ne fardu ayni la mooy loo xam ne kenn mënuloo ko defal yaa koy defal sa bopp moo tax borom bi ne ni ngay demee ci président di ñaan audience mu jox la jour tel nga ñëw mu recevoir la man soo may ñaan audience demal julli ma recevoir la nga wax sa soxla ndax boo ñëwee li ngay njëkk a wax mooy allahu akbar kabbar la nga cey teg mooy waxu sunu borom alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne mooy borom bindeef yi arrahmanir rahim topp ko ba ci ñaan gi nga xam ne moom ngay ñaan parce que ku ñu recevoir boo ñëwee di nga wax sa soxla borom bi ne la léegi nag maa ngi lay déglu nga commencé iyyaka na'budu ñun de yow rek la ñuy jaamu yàlla waaye bu ñu jàqee itam bay xettali ko wala bay dimbandikoo ci yow lañuy demandiko wa iyyaka nasta'inu yàlla dila déglu nga ne ko ah kon nak ihdina siratal mustaqima yàlla na nga ñu gindi tek ñi ci yoon wu jup boo xamne dañuy jup ba ila yawmi ah yàlla ne la yoon wo moy wan yoon nga ne ko siratal ladzina an'amta alayhim yoon ñi nga xamne ya yaa leen xéewale woon teg leen ca yoon woowa ñi doon def li nga digle di bàyyi li ñi tere ba xëy am sa ngeureum yoon woowu lañ bëgg nga teg ñi ci moo tax gis nga kuy julli ba pare sa xol mënul saxoo nit ñi mënul xajoo nit ñi mënoo jëflante kenn war nga wet ci ruq xool sa bopp parce que yàlla moo la recevoir nga ne ko man bëgg naa ñëpp sopp naa ñëpp maa ngi ñaanal ñëpp te pourtant bi la yàlla recevoir mënoon nga ko wax ne ko maa ngi lay ñaan nga gindi ma mais danga ne ko yàlla gindi ñu kon yóbbaale nga ñëpp ci julli Retournez naka ngay ñaanalé nit ñi ba paré retourner mëno ak nit ñi kon du dëgg ci yow motax dañu bëgg boy julli ngay téwlu kilifa dafa mos di pour wax la bi julli nga ne wax né bu ko dal parce que président gis nga yar ak teggin bi nga jox do raf do yengatu pour rek respecté ko mais ana ki sak président kon bo jakarlo ak sunu borom war nga ko wan ko yow yaay ki nga xamne bi yow rek ya ko yello raf woro gestu woro dëng woro def dara parce que ki nga jakarlo mo tollu non naka la kabar kabar bobu commencé julli am ay tëggikati sabar yu ñëw ci pegg jàkka ji di tëgg di tëgg di tëgg ba mu sëlmal bi mu sëlmalee mag ñi commencé ci bëtu ñii dañoo soof nangam nangam di ñaxtu di jàmbatu góor gi ne leen moo lu xew ñu ne ko xanaa ñii rek nit ñi julli ñi nekk fii di yàq julli nit ñi kenn mënu dëgg góor gi neleen leen ah yéen nag a dégg ay sabar waaye man dégguma ay sabar man dégguma ay sabar kon kooku xam na ki mu amoon nag affaire kan la xam na ki jàkkaarloo kan la te dañu wax ne julli ginnaaw ñaari baati seede yi mooy ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah ñi ne ginnaaw ñaari baat yooyu bi ci gën màgg mooy julli moo tax yonent bi nee na yàlla bi mu gën a bëgg mooy julli te am na leer gu nga xam ne day jolli ci xoolu doomu aadama biy julli ci kaw mu def nañ ko santaane waaye bu fekkente ne defoo nañu la ko santaane mën nga julli ba ilaa yawmi diin doo dañ di gën a añaan doo dañ di gën a am sobe doo dañ di gën a ñàkk sell parce que na nga warloo ak sa borom joxe woo ko gëdd bi kon su ko defee tabaarakallaahu ñu xam ne ah borom bi moo ñu ko sant euh, ñu góor góorlu ci nim ñu ko santee ak ni nga xam ne noonu lañ ko ko war a joxe ci kàttanu ak ci mbaaxam ndax dañ wax ne bo nga bo xamé ne japp nga pour dem di julli da ngay genn seytaane si sa xol ndax yaangi dem di am ak affaire borom bi koku warato jël keneen du ko duggal sa xol bi lu borom bi subhanahu wa taala nga ñew wan ko ne ko nak ah man de sa jambu doyet la li ma sant mënuma ko def ni ma ko santee waye dina ci def sama kemt lay katan. te itam dañ wax ne yawmal khiyam li ñi njëkk a rek la julli su baxé lepp baxna waaye yàlla nee na su bonee mën la yow taxawal nee nga xaar ma ñu xool yeneen yi waaye bu julli baaxee borom bi neen yeneen yi si des je m'en man sama yoon nekku si comme julli gi baax na rek yow xamal ne am nga chance kon bu ko defee ñu xam ne ah borom bi moo ñu ko sant mënuñ ko matale nag nam ñu ko santee waaye ñu def ci suñu kemt lay ndax mi ngi mel ni composition rek bu fekkee dañ la laaj 100 points nga ñëw am 1 kooku neexoo jàppale mënoo fexe fexe bañ jàppale la nga nga nga admis mais bu ñu la laajee 100 nga am 80 pour cent 20 pour cent yi mën nañ ko naxasal fexe noo jàllee mooy lii wolof wax naan mbay si sa wewu tànk te itam yàlla yàlla bay sa tool yàlla moo ñu sant julli gi ndax baax na wala baaxul ñun nag xamuñu moom moo xam waaye li am solo mooy nañu ko def ca waxtu wa ndax dañu wax ne bu julli jotee te demoo def ko ca waxtu wa te bi mu jotee dangaa toog topp sa bànneexu bakkan même soo ko jullee après da ngay am bàkkaar parce que bi muy jot dara téwul nga dem def ko sa bànneexu bakkan nga top ya ngay déglu ay musique ya ngay préparer ay programme ah ya ngay dem fi ya ngay dem fa mais légui ana borom bi la sak yoré sa ak yoré sa lepp né la man 5 minutes rek la la may nga jox ma lima soxla nga paré dem sa yoon nga né waaw il faut que ma top sama programme bam paré pare jox yalla lim soxla hmm mais lolu ken xamul lan la kon tabarakallah bu ko défé ah dafa melni ni liñ ñi mayon ci waxtu jeex nañ bu ko defee xanaa ñu santaat ñi ñuy seetaan rek di safoo seen émission xam sa diine ngeen ànd kook seen xarit seen wëllëre seen soppe di babakat Salla mu leen koy taxawal bis bu nekk euh, ci alxamis euh, ci waxtu wi ngeen di ko ànd ak moom waaye nag ci mbaaxu yàlla ak ci kàttanam lañ koy defee bu ko defee ah El kon xam nga fi ma génnee tey nii boo ma xoolee xam ne ah sama tailleur bi moo jaar fii Eh, numéro de téléphone nak kuko ku da ngay def 77 146 45 24 mu ngi tuddu Ibrahima ñu gën ko xam ci Ibboy deug fi ci Arema ñi ngi Sam-Sam 3 bu ngeen ñëwé da ngeen ko fi fekk mu defal leen yu rafet yu tar yi nga xamne mom lamay defal nga xamne tabarakallah bu koy mbokki seetaan dañuy bëgg ndax ndax rafet gi mu rafet ak itam yene bi mu koy defé kon itam ñi ngi ñaan yalla mom yalla nako yalla defal tawfiq jàppale ko ci place am bobu ba mu nek ay place yu maga maga maga mag ci mbaxu yàlla ak ci barki yonente bi sallallahu alaihi wasallam kon mbok yi ñi ngi leen jox dix daj dig daje al khamis bi di del soir ngeen ànd ko sen mbok sen xarit babakar liko dale 6 6h jàpp 7 h bi muhammadin wa bi bintihi wa bi ba'liha wa bnayhum a'la min huda wa bi sahbihi wa tabi'ina lahum fahum ساداتنا أهل المكارم والندى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته